Aziz ngi lay nuyu fii ci Leuz TV. maa ngi lay fay doom lay. danoo gisoon ni dégg naa sax ay jinne ngeen utilisé pour tëgg ko parce que yéen yéen nekkoon ci cat la léegi fexe ngeen ba tëgg ko léegi lan ngeen yëg. yéen mooy mooy tëgg. dégg naa yàgg. non Gaston rek mooy tëgg. Ah, mais ngeen di làqatu noonu man dégg naa. non ma Gaston mooy tëgg mais man lu Gaston def ma jàppale ko ànd moom jàppale ko. ci bëccëg gis naa la fii yaa jiitu nga sanab ko def ko sa essai. loolu moo moo normal nag gas sama la lu mu nekk dama koy ànd ak moom rek. mais dama bëgg nga wax ma lu leer fii ñun duñ ko wax kenn ñun duñ nettali parce que dama dégg ni Aziz Ndiaye ak Gaston ñoo lëngoo tëgg làmb ji mais loolu jarul làqatu parce que yow yàgg nga nekk ci ci làmb ji di def ay kii. Gaston Mbengue mook benn société bu tudd IACOM ñooy tëgg man tëgguma man je suis là que ko ci liggéeyam ak défendre les intérêts de Balla Gaye loolu ma fay président bi mu koy jox xaalis bi pare pour mu tëgg làmb ji yéen a àndoon. loolu yaa ngi tey laa ko yëg musuma loolu. ma dégg ni yaa ngi for naa ko ci wéewu ba. loolu gars dañuy na mi ngi ci ndox mi. xale feebaroon den faji ndiggam. Balla loolu yaa ma ko wax Balla ci ndox mi. ndox man fii lay jaar. ndox mi wóoru de Modou Lo ngi ci ndox mi. waaw kon de. ñaa xarañ ñu ngi lay. Aziz Ndiaye day àbb chargeur gis nga indaale wul chargeur ah <laughs> mbëri jamono principal. mais loolu xeer la. Senelec lañ lay yóbbu. waaw. wuy ma ñaa ñu ngi lay nuyu tey fii ñaa xarañ loo ah. waaw waaw ñaa ñu ngi lay nuyu fii tey ci kii bi ku ne xam ne ni ñaa xarañ loo moom kenn du ko laaj looyut fii ndax Modou Lo lool lool loolu xew na loolu am na yeah sa diggante ak Modou moom lan nag maadi la rek newoon naa leen benn mbër benn footballeur benn benn euh, benn waykat laa am ak benn développeur Modou xarañ loo Marcel Diagne Waly Balago Seck ak euh, Ibou Touré ñeent ñooñu laa am Modou Lo yaa ko tay xarfaxu yaa koy moom Modou ay bagage am wóolu ci doomu aadama bu dee bëgg ngaa dégg dëgg lépp mu xiwtal moom carrière solo rek combat bi yaakaar ngeen mu génn barki alxuraanu karim de bu ñu yàlla bu neexee sunu borom ci kattan suñu borom dañuy daan Balla Gaye incha allahu rabi ñaa moo incha allahu rabi